waaw dañoo ñëw mexe ndax euh, dëkk bu mag la fekk fi sunu responsable yi ñoom xaadim euh, parce que parti bi depuis mois de décembre ñu ngi ci tournée nationale ndax mënoo wax ni parti politique nga dëkk bu tool ni amoo fi nit loolu sérieux te souvent dañuy wax ni Sénégal am na ñeenti téeméeri parti mais Sénégal amul ñeenti téeméeri parti pour man Sénégal ay ñaar parti ñoo fi ñoo fi am li ci des ay chef de parti la ndax parti boo xam ne yow ak sa doom ak sa jabar rek yéen ca ci ne pour man du parti euh, may wax euh, aussi ni dëkk bu toll nii ah ma dëkk Thiès aussi war naa fi am base moo tax ñu waxtaan ak euh, ñoom xaadim ñi ak ñoom Kumba Gisee ñu samp parti bi fii ci ci Ngaye te gis ngeen réunion bi réunion bu am manaa la profité ci aussi wax problème yi ngaay ndax dëkk la boo xam ni ku ne xamee nañ ci wàllu artisanat dëkk bu avancé la te chef de l'État wax na nu jël quinze pour cent ci li nga xamante ne bii état bi daf koy commandé ñu jox ko artisan yi ndax dëkk mënul développer mënul émerger te li nga xamante ne bii yëpp daf koy daf koy defar du ko jariñoo loolu nax sunu sunu bopp la kon ñu ñaan aussi. directive boobu chef de l'État wax nañu jox 15 pour cent yi commande publique yi artisans yi na ko ñëpp respecté ndax loolu mooy njariñu euh, réew mi. waaw toujours ma wax ni sur ce plan la il faut pas ñu jéem a nax le président de la république ñun parfait euh, on n'a pas performé xam nga ci wolof maanaam xale yu bëri dañuy am seen diplôme pour am stage sax day am day am problème te loolu président daf ci war a jug. te année bii da koo déclaré woon 2016 ne année mooy année de la jeunesse jàpp naa ne xaalis bu bëri sax ñu ngi koy def ci vacances citoyennes yi moom nañ koo jël transformé ko ay bourse jox ko xale yooyu au moins ñu man mën a am lu ñu préparer seen i dossier wala ñu mën a am lu ñu mën a demee dakaar pour pour déposer seen i dossier man mooy sama moo moo ma sa nekk sama gis-gis loolu en tout cas ci wàllu liggéeyu xale yi maa ngi ci attiré attention chef de l'État lu bëri des na te bu fekkente ni bilee taxawuñ ci élection yi ñëw mën nañu am lu ñu bett ou bien jàpp mu ne sax dañuy voté contre ñun waaye mën nañu bank seen lox te bu xale yi wotewul mag ñu wote ah mën na bañ a baax si ñun voilà. waaw au conseil bi comme man assise nationale bokkuma ci gëwuma ko programme bi nga xamante ne bilee moom la Sénégalais yi euh, fal mooy yoonu yokkute. léegi mu tudd plan Sénégal émergent man loolu laa gëm moo tax lépp lu jóge ci agence nationale man dama ciy maandu léegi nag ndax baax na ndax bonul ah mënu ma juger mais suñ demee ba commencé ko doxal ah dinaa xam fan laa ci taxawee waaye daal li ma li ma am na loo xam ne gis naa ko ci ma ñu bëgg a jël ay maire ak ay président de conseil départementaux yóbbu fa man neexuma neexuma parce que foofu ña fa war a dem mooy ñoo xamante ne bi seen xel. seen xalaat màcc na ci wàllu décentralisation ba ñu mën a dimbali sunu communes yi nga xamante ne bii dañuy doog a juddu ñu dimbali leen accompagner leen ba teg leen ci aw yoon man loolu mooy li nga xamante ni moom la ci waaye waaye au conseil boo xam daal day nuroog association des maires du Sénégal man moom vraiment d'accord ba ci li ci des nag moom ah nañu xool rek buñ ci tolloo luñ ci war a def rek daan daañu ko ci def comme d'habitude. tey bi ndax dañ fee euh, dajaleel euh, ki nga xam ne mooy Mouhamadou Mouhamed Diagne euh, di njiitu parti wu Synergie républicaine mu ñëwoon fi seet si ñu doon daja boo xam te nii daal ñun kontaan nañ ci trop ndax liñ ci doon séntu lépp gis nañ ko ci. waaw leen ci waxtaan nañ ci tamit si suñu jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi boo xoolee ci mbirum aada ak cosaan waxtaan nañ ci. ci mbirum lu surtout ci euh, fële nga xam ne mooy lycée bu Ngaye nga xam ni boo xoolee effective bi euh, dafa xaw a bëri te classes yi euh, maanaam dajul lépp boo xoolee ci ñoo ngi am ci fukki classe ak juróom-ñett te ñu waroon a am ñaar fukki classe ak juróom ñoo ngi ko doon wax tamit bu fekkee ni mën nañoo yóbbul suñu yóbbante bu ko defee ñu mën a mottali sunuy classe dool doon nañ ci ko rafetlu